la République représente ko doro be ko barak sa ndagaru sa zoro refer so victor ko représente la République anki par la République représente du président de la République bi nga xam ne mooy demeure historique situé dans la quartier Dakar plateau capitale du Sénégal construit en 1902 wi sama départ ko na yàgg tuddi la la la la mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF le porcelain Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam ñamaat nu xaaree ni ba xam kii woote ba ko jël président de la République ko kan la war a doon ak fan lay woote salaamaaleykum oui bonjour bonjour oui Oui, ça va bien, oui, ça va, ça va. Euh, je suis euh, euh, Paté Diop, le porte-parole des étudiants de, l'UCAD Le porte-parole des étudiants de l'UCAD Oui, oui, oui. À ah, l'université Diop Oui, université Serrante Diop. Oui, oui euh, parce que deux femmes de ma seetlu. je lan loo le le parce que mon jékki-jékki euh, rek euh, un bonjour ni de war waaye yow bu non mënul nekk parce que corona bi bi mu ñëwee euh, am dégâts yu mu def euh, ñun dañ ci profité def benn petite vacance man mi euh, fan yii yëpp maa ngi woon Casablanca sama yeneen ami yi dem France ñuy dugg ay yeneen yeneen secteurs yi pour lan fexeel seen xol ànd ak seen ay gel Happy birthday. Oui, ma. Oui, oui. xam nga dañ naan euh, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu as. Effectivement. waaye yéen ku leen yaakaar boo moytuwul peuple bi du dox de. non non non non tout ça tout ay nangam nangam di noyal. mais pourquoi pas noyal pour lan. pourquoi pas. da ngeen di jàngi si. parce que man mi dama am gel dama am gel boo xam ni. Vraiment, damay toog presque pendant pendant pendant presque euh, sept euh, six mois du ma ko gis donc euh, c'est normal que mon profite ci ci ci moment bi pour kooku ma satisfaire ko mon kontaan. man xamna li len naqari moy jeune neug yu xat yee di mel ne poqotaanu liir. waaw mais néeg yooyu moom néeg yooyu moom c'est c'est c'est l'état non non l'état non en tout cas en tout cas au euh, euh, euh, pour dire wax ni que ay ay ay santé comme ça il faut que tu dises à président que les étudiants pas pour ganguer et c'est tout mars il septembre a noël mais droit il est l'heure nak que vous regagnez les vous vous regagnez la base. Euh, mais lan lañ wax. dem lan université ngeen jàng il faut il faut il faut éviter éviter les rassemblements. yaakaaru réew mi ci yeen la né bu len fonto. mais lan lañ wax éviter les les rassemblements. mais y a les mesures barrières. wa mais mesures barrières ba ci lan. corona day xaar euh, day xaar loolu. corona bo bo booy am ka contact léegi foo koy jëlee parce que les étudiants de, ils sont nombreux dañu bari. mami donc nak lolu duñu ko mën def. état jël na ci ay matuwaayam. ba ci restaurant yi ngeen di lekkee fu six personnes daan toog kaata fay toog. après. est-ce que dégg nga ma. jàngi wuñu. ah jàngi wuñu oui il faut dire président que les étudiants nee nañu jàngi wuñu parce que daf ñu bëgg a tayle. non loolu président bu ñëwee léegi. non daf ñu bëgg a tayle parce que euh, moom bu sañoon bu sañoon xanaa ñun kon corona bi dal ñu. dana leer.

votre correspondant de peut-être pour le moment. Veuillez appeler ultérieurement.